mbokk internet yi ñu ngi leen di dalal ci biir limametti.com di leen jaajëfal ci topp bi ngeen ñu topp ñu daal di ñëwaat ak yéen ci seen naafila bis bi ñu leen koy dégtal bis bu nekk ci biir tey nag di fukkeelu guddi ak ñeent ci weeru koor ngeen war a amal juróom-ñetti rakka rakka bu ci nekk ngeen war ci amal benn fatiha juróom-ñaari isa jaaxa juróom bu ci nekk ngeen amal ci benn fatiha juróom-ñaari isa ñuy ñaan yàlla yàlla nangul ñu ko limametti point com di leen ñaanal kooru jàmm